liggéeyam ñëw fii mm-hmm. bàyyi njabootam ñëw fi ànd ak doomam bu ñu naan Cheikh Thioy Thioy mm-hmm. Cheikh maa ngi nuyu bu baax a baax mm-hmm. di gërëm aussi tamit euh, ci xeex bi Bakary parce que xëy na peut-être vidéo yi Alburax moo ko yor mais bu ñu leen ko monté di ngeen xool après kan mooy Bakary ban Bakary la Bakary Sakho non safar la Bakary Sakho maa ngi koy nuyu mais Bakary il s'appelle Bakary la tudd coach la bu nekk coach la nekk waaw ok Vince Dabaya moo yor musculation bi melu mhm. moo yor contact bi. ok donc trois séances lañ doon def par jour. quand même voilà c' est ça loolu moo doon def par jour mu nekk combat boo xamante ne nii combat bu am solo la Balla Gaye ñëw ci làmb ji fa mhm. ñëw indaale lu Sénégalais yi xaar gisul woo xaarul woon ci moom. Mhm. parce que bi mu summee ko ba daw. ñëpp xam nañu ni Balla Gaye mii indi na forme. Balla Gaye bi mu summee koo qu'est-ce que tu te dis waaw man déjà Balla Gaye avant muy mu koy gis ci làmb ji. boo ko gisee ci open press bi. ok parce que tamit ah, ah, ah boo amee yaram bu neex doon mbër bu yàgg bëri nekk un champion da ngay sawar woon say amateur dalal seen xel. ok yaa amateur yi ah, Balla Gaye yu bëri bi ñu gisee open press bi seen xel dal na ci ñoom. Hmm. wala boobu dalul à cent pour cent tamit dal na ak quatre vingt pour cent. Hmm. mu ñëw su ma ko de ses shorts de ses débardeurs wane ay braam. war ay kii kiisam. Mm. wane na moom mii mën na affronter Tapha mm. ba tax xel yu bari dal ci moom ba ni mu ñëw bëri see. Mm-hmm. ñu gis ne aussi combat bi tamit tambour battant la ko mënee. waaw parce que tamit man bi ñu demee ba mu ba ñu àtte leen ba Tapha dem ci médecin bi dama ne oh Balla de fii de war naa bu amul dara war naa jeexal fii. Mm. mais boobu moment mi ngi toog di récupérer di noyyi di xaar adversaire am donc daal Balla. gis nañ mu indi ci làmb ji état boo xamante ne tamit gëj nga koo indi. Hmm. ku koy tëkkale dañ koy tëkkalee ci ginnaaw bu mu bëree Gris Bordeaux ba pare. ba dem defi préparation ci Modou hmm. ñëw indi forme boo xamante ne man sax pour man boobu ma gënal bii. Hmm. mais nag ci diggante bi nag ay at ay at fi dox. waaw at tamit dafa am importance. bu dee wax Tapha nii. ay Bombardier di indi ay Elton at yooyu léegi ay fukki at ak nangam la boobu tafaatin dañ koy séntu mais dañ ci gis à peu près mm. mais dañ ko mën gisaat carrément mm. man moom tam lu lu ma séntu woon ci moom la mm. ndax musoon naa gis ci moom ay benn bande muy entraîné benn benn euh, vidéo muy entraîné en Côte d'Ivoire mm-hmm. ma yaakaar ne lii peut-être lu yàgg la ñu ne ma Côte d'Ivoire la jege nii fraîchement ma ne tafaatin bu dee dem Côte d'Ivoire di def nii mbëri yi bu ñu ñaaree bëreeg moom dañ naan du moom ndax gisoon naa ci moom boobu etat physique boo xam ne dafa mel ni ku dellusiwaat dix ans ci ginnaaw boobu sax gisaatu ma ko ci bii mais Balla aussi dañ koy laaj na ko yow ndax tàyyiwoo ci warloo tàyyi ci forme méforme forme méforme ndax lii danga koy téye ba sa carrière jeex wala dangay delluwaat def li nga defoon waa may combat mettre beaucoup de moyens dem une seule fight ñëw bien daan après ainsi de suite après ndax lii loo bëgg teewaat la. waaw sport moom mooy kon li wax rek. léeg-léeg nga am forme mais bis boo ñàkk doo am dara. sa ges forme mel noonu bis boo war a ñàkk sa lépp lay réer muy forme ak muy leneen ak leneen donc sport daal moo nekk noonu yaa de wooy de baax hmm. donc sport moom hmm. da nga koy calculer ci lépp blessé da ci am lu yàgg hmm. yenn yi doo mën a tenir yenn yi affaire bi jàpp la léeg mu bàyyi sport moo toll mais aussi dem bu ñu fàtte ne mënoo nekk xale commencé entraîné ba ni ngay jëm mag ni nga meloon nga bu ko mel wala ni nga li nga yoroon ci ci ci ci li la waroon mënul nekk looy gën di dem at yi di gën a joué di wane boppam. ok mais daal de façon ak suñu staff. lu ñu mm. war rek dinañ ko def ndax combat bi wax dëgg yàlla man quatre heures di matin laa doon jug di dem entraînement di def trois séances moom laa eggaliwaat fii rek. donc mu nekkoon combat bu ñu respecté kon ni ko adversaire bi respecté mu nekkoon aussi tamit combat capital. Hmm. moo tax mbër bu ñu nee léeg-léeg mbër si meeku nekkul ci forme wala ay cinquante pour cent wala soixante pour cent dama ñi waroon nañu simmeeku benn sax benn un moins ñu koy def sport ci la ñuy xam cinquante pour cent. wala 60 pour cent. Mm. ñu xam lan mooy mbër. Mm. kalaasu buur géwél gi ak kalaasu fadam seytaan ak rambaaj yi donc il ma yóbbu leen saal wala sa copain la say su may copain la du dëgg. Mm. tellement que sport moodu dafa métti waxuma la ak bu mbër. waaw sport de mbër. Hmm? kii li mu daj est ce mën na ko wax. man entraîné naa barki Seydina Mohamed bay jooy. Hmm. ndax ay coono yu métti. Hmm. kii li mu daj moom mënu ko wax. ah hmm. te benn temps amuñu ko hmm. pare fa jaamu fa yàlla kii xam nga caddaloon def naa ko ibaaru jour boobu doon na jaamu yàlla tellement que dañoo concentré woon ci lu bari bari bari bari bari bari bari mais bu ma déggee Balla Gaye hmm. depuis mu commencé dem INSEPS man su ma koy déglu mu wax temps man euh, benn nit boo xam ne dañ koy xaw a dafa mel ni dañ koy formaté ci bopp def ci bopp bi un euh, esprit sportif waaw ah, mais c' est normal parce que foofu moom. waaw sportif. Mhm. au niveau. waaw da nga dañ lay ci comportement bi ci lekk bi ci naan bi. lépp li nga xamante ni doomu aadama war na ko def rek pour correct dañ la koy def. waaw parce que foofu ñu nekk sport étude moo fa nekk. Mhm. Mhm. am na information ñi fa ñoo xam ne xale xale ndaw lañ fa lañ màggee defandoo fi lépp xamuñu fenn loolu sport. jàng ñëw tëdd pare lu ñu war a dem ndox ñu jox ko seeti seen parents. donc ñun bu ñu fa nekk dañuy mental normal boo xamante ne day gis suñu xel que ni ñun bu ñu exploré dañu war a toog normal xel mi ibbeeku mental bi donc ci lu bëree bëri loolu sa portant pour sportif. ci côté mental ba tey Tafa. avant mm. sa combat ak Balla Gaye daa am communication yu doon daw te man j'étais sax contre communication yooyu muy Tapha Tine ñemewul Balla Gaye te loolu du wax mais bu ñu seetaanee combat bi. Mm. nii Tapha Tine bëree. ak Tafatine ni mu ñëwee taxaw bàyyi bala diriger combat bi ba ni kombaa bi jeexee est-ce que tey ñooñu bu ñu ñoom toogaatee di wax est-ce que ñoom duñu ne ñoom am nañu dëgg. yeah Modou maa ngi lay nuyu xam nga man <laughs> comme li ñuy wax ci làmb rek man làmb bu ma yoroon poti taay kon waxatuñu ko quoi. Mm-hmm. man làmb sama doole ak sama taay moom ma ci bàyyi. dëgg la ak dondu ko. kon bu ñuy wax nañu wax leneen ko quoi. Mm-hmm. naa leen tooñ mooy Assis Balla Gaye ak. Mm-hmm. ak Baye Ndiaye. ma ne leen ñoom lan la ñu ragale waa ji loolu laay <laughs> question bi ñoom laa koy delloo quoi. Uh-huh. waaw mais man moom voilà muy noonu quoi. ci biir combat bi dafa amul benn moment ci biir combat bi nga am blessure ci combat bi. Mm-hmm. waa loolu moom am na ci combat bi mais sport de combat la quoi combat man sport yëpp laay siif. ok yi ci monde bi yëpp laay siif quoi. dóor nañu nit ci ring bi mu dem mu dem nan lañ yàmal am dem wàcc mm-hmm. liggéey mm-hmm. kon man tey xam bu ma demee ba ci ba ci combat bi ma am benn douleur bu may sentir voilà continuer suma combat voilà loolu la quoi handicapé na la ci combat bi waaw dem naa mais pourquoi arrêté wuloo comme que luxation la muy dul signalé ko mais seen xawaat la gëm am gëm gëm am yàqin ne damay daan waa ji rek quoi man lu ma ah, gëmoon la suma bopp quoi Mm-hmm. boobu gisuma woon dara lu dul terwaa ji dem suma yoon voilà loolu la malgré li bi di métti métti ceeb ci yow toujours jusqu'au jusqu'au bout yaa ngi ne da ngay daan da ngay ku ne gëm-gëm boobu nga moom gëm-gëm boobu la amoon la mm-hmm. loolu la mais dem naa boo xam nga sama benn parti bii voilà mooy loolu quoi mais lépp sport de combat la man dama koy delloo ci sport quoi mm-hmm. loolu loolu esprit esprit gagnant la loolu kuy bañkat mooy mel noonu macha allah buur géwél dañuy dellusiwaat foofu ñu ñëwaat parce que Balla ak tafaatin Tine bëri nañu ba pare. Hmm. te tout au long la préparation ñu ñoo ci nekkoon xam naa balaa ngaa ñëw rek joxaatal ma sama papa may ngoone Fall mu tijjiwaat waxtaan wi papa gis nga sa ñaari doom yi li ñu bëre. loo yow laay commencé ba pare. Hmm. nga ni. ci yow laay commencé ba pare. bisimilah papa. damaa dégg ci say reportage nga taxaw ne ah galaaj mën na laa aar. gàllaaj mën na laa yóbbu ci lenn gàllaaj mën na laa musal waaye nag di nga toll foo xam ne gàllaaj hmm. combat bi gis nga ci gàllaaj wala gisoo ci gàllaaj gisuma ko ci de ah kon gàllaaj amu ci gawuma ko gisuma ko ci gisoo ko ci benn yoon feeñul ci benn yoon gisuma ko ci amu kenn ku nu jekku mbaa ku jekkadi ci gàllaaj loolu de laa gëm gisuma très bien àddina dégg ngeen Modou Mbaye loolu laa gëm ah, gisul gàllaaj waaw amu ci gëmu ko feeñu ci waaw Balla nag a def yaa ngi ci jàmm ana waa Géejawaay ñooy say pànk yëpp ñoo ma yóbbante képp kuy supporter Balla nee na ma soo demee waxal ma ko kàddu gii ndax ci yow noonu ko mën a waxee may leen ah ñu ne ma neel Balla Gaye ku yabaate la <laughs> yab nanu lool ndekete Balla Gaye su ko neexee mën naa toll nii rajeunir nii hmm. yor ay abdominaux tracé mala yi feeñ ak fees bi génn mu takk ngemb nu ko neex mu doxee am agilité vivacité ak rapidité waxuma ko de ñoom ñoo ko wax bokkaal yaa ngi nii oui waxal ak ñoom ndax question réponse la puis laa jëm après ndekete su la neexee nga toll nii en préparation te nee nañu combat yi nga ñàkk combat bi lañ ci gënoon a tiit nee nañu combat yi nga ñàkk ci ginnaaw nee nañu boobu la ñu ëppoon ak yaakaar. Mhm. nee nañu combat bii nga ñëw nee nañu moom la ñu gënoon tiit loolu waxal ak ñoom tontu leen damay dem ci tapatin rapidement. waaw mais xam nga jàmm ak pexem yàlla ak dogalam aussi xëy na xëy na yàlla moo dogaloon tey combat bii préparé nañ ci mhm. ci ni mu waree yëpp combat yëpp préparé nañ mais bii aussi tamit. xam nga ngay bërëg koo xamante ne wax dëgg yàlla def na dix ans daanul mooy kon ni mu ko wax mm-hmm. ca njëlbéen bi dama ne leen bërëg ku mel ni Tapha Tine dina la yokk jom dina la yokk waaj di nga mën a rey sa bopp ndax parce que champion la mm-hmm. ah. moo tax daawal ca xaaral ma continuer parce que bërëg moom boo amul doole doo ko daan bërëg moom boo amul xam doo ko daan mm-hmm. moom boo amul mental ko daan bërëg moom boo bu normal doo ko daan donc moom kon nekk na mbër bu complet hmm. te du ko seen naan mbër bi anamu mais hmm. xëy na aussi tamit am nañu défaut aussi tamit ci yeneen combat ci préparation yi loolu kese la mais beneen yoon ko incha allah kon gis nañu résultat bi dañ ciy continuer bu neexee yàlla suñu borom. Hmm. ndax da nga li réew di wax naan fii mu ne actuellement dara doxul sa diggante ak benn combat bi nga xam ne même soo amee beneen combat nee boobu combat mooy yoon ndax nee naan ëmma daan na la waaw daan na ma ñaari yoon wax nga dëgg. waaw ñu ne ndax mi ngi ci combat boobu. non sama xel demul ci ci dara loolu li nga xamante ne ku ma yàlla boole rek damay bëri moom. muy am ma seen. muy keneen ak keneen amul benn problème amuma problème adversaire. la moo tax ba nga daanee ñëpp ñëpp ñëpp ba mu des ISAP yi danga nga ne da ngay effacer yi pour mën a percer. waaw loolu parce que dama nekkoon ci yoon ISAP yi nekkoon ci yoon. Eh. ma ñëw ba àgg nag wax dëgg yàlla mooy leen jox leen muy ISAP yi ma jox sama. jërëjëf. ayca Moustapha na nga def. maa ngi fi peru. yaa ngi ci jàmm. waaw maa ngi sant yàlla. ana waa Njanjaar. <laughs> ñëw fa. lan moo tax gisuma waa Caacaw waa Sewtin waa Njabaxali waa Nax Neex waa Réew Maawo waa Pey si Njaan ci sa tumukaay. yow booy ah. maanaam ku nekk laxas ndigam taxaw. père ñëpp a nga foon ñëpp nga foon. Ah, am na ñu ma fa gisul de. waaw mënoo gis ñëpp. loolu ñooñu tax gisuma leen. mais ñu ngi woon seen kër di ñaan rek. ñu ngi woon seen kër di ñaan ñi mën a ñëw estat ñoo ñi woon seen kër di ñaan en tant que borom yi xam-xam daan takk ngem. waaw mais xam nga xam nga. <laughs> xam nga àdduna dafay. xam nga xam nga dafa àdduna dafa yaatu. Ah, ba man man bu ma amee combat gëm naa ne kulu kuy bawol bawol yaa ngi may ñaanal. moo xam nga doon mbër wala supporter wala leen man loolu laa jàpp quoi. mbër ya daan takk ngeem daan taxaw ñëpp ngi ñëpp a ngi suma ginnaaw ñëpp ñëw nañu ñoom ñëpp gëm nañu mbay Diouf indi ko mu ñëw taxaw sur le combat Mbaye Diouf c'est le champion ah, yeneen mbër yi ma gisul nga xam ne ku am ak kii waaw jant kii ku am ab jant ak moom ba génn ci taxul nga mucc nga am ak ku toll ni ab jant ñu yaakaar ni ci mukaay dangaa war a yokk mm. soo yokkut waroo wàññi mm. non non père Mangone man dama yokk. Mm, mm. man booy la ma yàlla boole durant suma carrière. Mm. kon dara mënta tax ma beddi leen. comprendre nga. ci quatre vingt mille francs laa commencé suma carrière. ànd ak mbay ndewaan mi ak booy yi. comprendre magi bawol ñi ma mën a dem dem naa ci ñoom yéegal leen mm-hmm. ñi may ñaanal ci seen kurus wala ñu ñaanal ma ci seen xol ñaanal nañ ma ñi mën a ñëw esat ñëw nañ mm-hmm. ah, ah affaire bi loolu la du ñëpp mën a ñëw esat mais man li ma jàpp mooy képp ku di bool bool wala nga sopp tafaatin mooy ñaanal nga ma ma am ndam mais lu ñu ñaan ñaan ñaan ñaan ñaan te suur boobu du suma suur <laughs> nii rek lay demee sant yàlla. sa ñaari loxo dafa dam tafa. sa ñaari baaraam dafa dam moom laa lay expliquer léegi dem naa ba ci combat bi xam ne sama partie droite bi ça va pas yéen ñëpp gis ngeen image yi. Mm-hmm. c'est pas l'appel ñu ciy revenir di ñëwaat. Mm-hmm. voilà dafa damu ni ah. non wax dëgg yàlla damul ko mais. am am na jafe-jafe mais sawaa va quoi après combat da ngay dem faju ji moo xam ne nga daan wala daanoo parce que combat yi ñuy def dafa métti. Mm-hmm. booy xool bokk na ci sport yi gën a métti moog rythme bi. parce que lépp fengante la mooy contact yi ñuy def ak yëpp. macha allah non dangay contact sa baaram dam wala sa faar ci biir combat bi dangay obligé ñëw bëri. loolu la moo tax bi nga demee Ardo amul kenn.